إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk jullit yi gannaaw ba ñu jiitalee sant suñu boroom bi nga xam ne mbooli mi xéewal ci àdduna la ca gën a tuuti ba la ca gën a màgg ci moom rekk la jóge mboolem mucc gu ñu mucc ci ay musiba ci mbaaxam ak yërmandeem la jóge àdduna ak àllaaxira ñu ngi seede ne kenn yeyowul ñu koy jaamu ku dul moom di seede ne Muhammad jaamam la woon ba mu yónni ci ñun ah du nangul kenn benn jaamu yàlla lu dul jaamu yàlla ga nga roy ca yonent boobi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di dénki ngeen ragal yàlla sax ci ragal yàlla bu leen dee mukk lu dul ne fekk yéen a ngi jébbalul seen boroom boroom boobu nga xam ne la nga xam ne wax na ko ñépp nangu nañ la ca jiitu ca suñu boroom nee na bépp bakkan dana masa dee lii moom jullit ak yéeféer dëppoo niñ ci mooy amul ci àdduna benn garantie du nguur gu màgg du alal ju bari du sécurité bu bari lu dul dee dana la masa dab loolu moom kenn amu ci pexe sunu borom nag subhanahu wa taala mu ne seeni pay yi ngeen doon liggéey ci kaw suuf allaaxira lañ leen koy fay mbokk jullit àdduna du kërug pay ku ko jàpp rek juum nga allaaxira muy kërug pay su ko defee pay ga gën a màgg la ca jiitu muy mucc ci sawara yal na yàlla musal ñu ci sawara waa aljanna bu doon seen xéewal mi ngi yem ci mucc ci sawara rek loolee àjjana la ci ñoom wala fi dañ naan moo dàq deegu fomm waaye it amul kenn koo xam ne dana génn bàmmeelam lu dul mi ngi ragal yonent laa ko dul yonent baa tey dana mucc ci sawara amma bu muccee premier àjjana mi ngi noonu gannaaw ba nag suñu borom ne ku ñu tàbbal aljanna ku mel nii day mooy ki texe kon ndekete ki texe du woon président de la république du woon chef d'état-major général des armées du woon le plus grand milliardaire waaye suñu borom mu ne fa man zuhziha anin naar wa udxila al jannata faqad faas ah waaw yàlla dunduk àdduna gi ñu nekkoon nag ñi fi nekkoon jàpp réussir nañu suñu borom mu ne déedéet wa mal xayaatu dunya illa mataaul xurur àdduna dund gu ndaw la woon goo xam ne dundug na xaate la waa ji génn ñu ne mooy président moo tar yi wër ko balaa yàgg ñu lëmas ko dugal ci biir suuf moom kese waa ji nga xam ne moo yore milliardaire fu ne mu am fa lu mu am day mujj benn pax kese lay mucc waa ji gënoon a siiw bu ñëwee mbooloo mi rëg rëg rëg bés dana ñëw moom dong ak pex ak ak paxam kon day wane ne dundug àdduna dund gu ndaw la buy naxaate loolu moo tax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daan ñu wax ne bari leen lool di fàttaliku la nga xamee ne nii mooy dagg bànneex yi haazima lazzaat dée gi nga xam ne bu ñëwee moo lay teqale ak sa doom yi nga bëggoon say soxna moo lay teqale ak oto ba ak kër ga moo lay teqale ak lu nekk yóbbu la la ci loo xam ne mii noo ko woon ca loolu fokk mu ñëw suñu borom mu ne bari leen di ko fàttaliku looloo tax ci ziyaar bi ñuy ziyaara tey jii benn jàkk ci suñuy jàkk looloo tax ñu indi xutba fàttali la nga xam ne mooy ak dee donte ne nee la chaque ne imam yi jaar fii ci seen bopp mu nekk ci Cheikh Ousmane baril neen di leen fàttali dee waaye mbokk fàttali dee du doy bu doon weer wu ne nga am ca xutba it kenn deful lu ëpp dee googu nga xam ne suñu borom nee na day bettaate amul koy dee lu dul dee da koy bett moo tax da ngay gis ne ñaka waajurul woon ak waaj heure bu dee ñëwee li ñuy wax yàlla ay yàlla delloo ma ngir lan ngir ma tabax kër wala ma lan déedéet delloo ma la alli amalu saalihan fi ma tarat e yàlla delloo ma àdduna ngiree ma daal di def lu baax ci la ma bàyyi suñu borom ne déedéet loolu wax la doy wax waaye barzaq moo lay xaar barzaq moo leen xaar ba baa bis bi nga xamee ne nii dañu leen cay dekkal ca loolu mbokk jullit it maa ngi leen di xamal ne ruuxu gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ruux gi gënoon a tedd gi jaar ci kaw suuf mi ngi barzaq ruux ibrahim moussa isa mboolem yonent yi ñu ngi barzaq donte ne suñu réew kilifa gu mag taxaw na fi fan yi wax kilifa gu mag gu fi jaaroon ne xam leen ne ba mu faatoo ba léegi ruuxam demagul barzaq mi ngi nekk di lijjanti loo xam ne su ca paree Sénégal kenn du dem sawara mbokk loolu wax la yoo xamee ne nii dafa safaanoo ak alquran wareef la it doomu aadama yi dénoncé ko ndax bu ñu demee ba suñu doom yi suñu soxna yi di dégg yu demee noonu ca kenn dénoncé wu ko mbokk loolu da ngay gis ne ci musiba la yi gën a màgg ci musiba kon képp ku faatu génn nga àdduna léegi yaa ngi barzaq lan mooy barzaq mooy benn étape bu nekk diggante àdduna ak keroog yowmal qiyaama bi yàlla di dekkal ay jaamam mbokk julit suñu yenente sallallahu alayhi wa sallam daanañu ñaax ne bari leen waaye di dem ziyaara bàmmeel yi ndax loolu dana leen fàttali la nga xamee ne mooy dee dee googu nga xam ne amul kenn kuy am alal ju yaatu di fàttali ko dee lu dul alal ju tuut ci ay tuuti ci ay bëtam te mooy mu xam ne sama immeuble yu bari yi sama société yu bari yi sama yu bari yi gis na ñëw ñu daal di may jël ma wan lépp gannaaw lan laa cay àndal mooy la ma defoon ci lu baax ku mel noonu kon dootul gis alal ji waaye kenn du ko fàttaliku ci lu néew lu dul mu baril ko waa ji nga xam ne dafa toog amul bu añee du reer la ma am ak su néew mais su xalaatee ne moo ne day bisi ngi ñëw léegi ma dee kon day xam ne ñàkkul ñàkkul de su dee ne góor-góorlu na def na lu baax jiital ay xasanaat ku mel noonu ñàkkul looloo tax lam am lu mu néew néew néew day màgg ci moom da koy baril te lu mel noonu la yonent bi ak saxaabam doon dund quatre-vingt-dix-neuf pour cent ca ñoom ci la nga xam ne mooy pauvreté ci la ñu nekkoon bokk jullit suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam heure bu masaan ñëw ca bàmmeel ya daane leen nuyu ne ay yéen yi nga xam ne yéenay waa kër yi gëm yàlla ci jébbalul yàlla xam leen ne day yéen yéen ñu jiitu waaye léegi ñu ñoo dab si leen loolee doon ak waaraate goo xam ne julit da koy waar boppam léegi ñu ñoo dab si leen muy wane na yow julit te yaa ngi ni dox ci kaw suuf waaye bis dana ñëw say xarit say mbokk say doom say am di jàmm ñooy dem ba ci armeel yi gas ba mu xóot ñu jël la dugal la ci biir daal di lay suul loolee ku ne war ci xalaat loolu tax ki nga xam ne mooy umm di di haani nekkoon ko Ousmane Ibn Affan goreloon nee na asma Ousmane Ibn Affan daawul dem ci xabru ya ñu ñuy gas bàmmeel lu dul bu tiimee bàmmeel bi day jooy ba sikkin bi daal di tooy gaa yi na ko waaw yow da ngay waaraate di wax aljanna doo jooy di wax sawara doo jooy boo ñëwee ci bàmmeel yi di jooy mu ne waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam day da doon wax man de yàlla wonuma ci àdduna loo xam ne moo gën a ñàng ab xabru xabru boobee ku ci mucc la ca gannaaw muy gën a yomb képp kuñ ca mbugal la ca gannaaw muy gën a metti loolu kon mooy la nga xamee ni nii moom moo taxoon ba Ousmane di bari woon di jooy ndax xabru boobee ku ci dugg fooy ana fan ngay mujjee ay yéen boo ko jullit képp koo xam ne yaa ngi dox ci kaw suuf nga xam ne dee mi ngi sama kanam mënuma ci mucc kañ lay doon kenn xamu ko du ñu feebar ñooy dee du ñu jaaxle ñooy dee dee moom heure la boo xam ne bu jotee ñëw na su ma dee fan laa jëm su ma dee ñang ma nar yóbbu ca xabru ya gannaaw loolu jël suuf la ma fay wittili mooy ay sax mbokk lii mbir la moo xam ne nii war naa tiital képp koo xam ne nii borom xel lay doon mu waajal loolee gën jaa màgg ci ay waajal bu ko defee ku nekk ci ñun xalaat waaw man guddi gi nga xamee ne nii danaa ko jëkk fanaan ci xabru man rek mbokk guddi googee lan lay demee te wallahi mbokk julit boo dundoon junni at ci bànneex ca bi nga fanaanee ci xabru fekkoo fa ngërëmal yàlla da ngay gis dañ la fàttaloo sa junni at yooyu yépp guddi googee tiitloo na borom xam-xam yi jooyloo na jaamu ko te yàlla yi yaa ngi nar a dem ci li yonent bi alei salatu wasalaam wax ñaar yu amul leen ñetteel imma mu nekk rawda min riyadil janna benn jardin ci jardin àjjana yi mi ngi lay xaar wala mu nekk benn pax ci paxi sawara lii mbokk day doon mbir boo xamee ne nii ku nekk ci ñun war naa bàyyi xel ana man naka lay def ba ëllëg ki si biir su ma dajee ak sama boroom sama xabru nekk la nga xam ne mooy rawda ci riyadul janna loolu nag lan moo la ciy gën a musal mbokk mooy nga ragal mbugalu bàmmeel boroom xam-xam yu jëkk yi dañ ko doon waajal gën jaa màgg ci ay waajal mbokk mbugalu bàmmeel boobu sax na ci alquran sax ci sunna suñu borom nee na ñii di firawna ak i notable am bis bu yàlla sakk dañ leen gaaral sawara wa xaaqa bi aali firawna suu al azab mi ngi noonu annaaru yuraduna alayha guduwan wa ashiya amul benn suba amul benn ngoon lu dul malaaka yi daan ubbi shajiri sawara gaaral ko firawna ak i notable am yowmal qiyaama nag ñu dog leen caa dogal gannaaw ba ki nga xam ne mooy albara ibnu azib daanañu wax ne suñu borom day li muy wax ne dana dalal julit ñi ci kaddu goo xam ne kaddu gu dal la ci àdduna ak alaxira yusabbitu llahu alladina amanu bil qawli sabiti fi lxayaati dunia wa fi laxira nee na loolu mi ngi am ci azabul qabr su ko defee ñu ne nit ki heure boo xamee ni nii dañ koo dugal ci biir bàmmeelam ba ay mbokkam suul ko buñ demee bay dem ay malaaka daan ñëw yëkkati ko toogal ko ba dàll yi nga xam ne nit ñi dañ koy def di génn armeel yi sax dana ko dégg loolu nag bu ko defee ñu laaj ko fa ay laaj laaj yooyu mooy kan moo nekkoon borom bi ngay jaamu su ko defee bu bokkoon ci ñuy jaamu yàlla duñ ko bokkaale ak dara mu ne man de yàlla mooy sama borom moom laa doon jaamu bokkaale wu ma ko ak dara ñu laaj ko ana ci yow ci ban diine nga nekkoon man maa ngi nekkoon ci diine yàlla jébbalul sama boroom gannaaw bi it dañ ko laaj waaw góor googu ñu yónni woon ci yow kan la duñ ko wax yonent bi ñu yónni woon ci yow dañ naan ko góor googu ñu yónni woon ci yow ci yéen kan la mu ne waaw kooku day mooy jaamu yàlla ba di yonent yàlla ba di li am solo mooy abdullahi wa rasul loolu mooy li jullit war a gëm yonent yàlla bi abdun wa rasul abdun la yu'bad rasulun la yukazzab mooy abdullah kenn du ko jaamu kenn du ko yaakaar ci dara kenn du sukkandiku moom ci dara amul lu ñu njëriñ amul lu ñu lor qul laa amliku lakum darran wala rachada waaye nag rasul mooy ki nga xam ne kenn du dàq ay xabaaram lépp lu mu digle dañ koy def lépp lu mu tere dañ koy bàyyi lu tax laa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha man seede woon naa ne abdullah wa rasul abdullahi wa rasul su ko defee suñu boroom daa ji ne malaaka yi wax na dëkk ñu malaaka yi ubbil ko benn fenêtre mu jàkkaarloog ajjana ak la ca nekk ca xóorul in ya fa nekk jardin ya fa nekk naan yeeg la fa nekk ci xéewal ñu ne ko fay moo nar a nekk sa wàccuwaay heure boo yowmal qiyaama taxawee ubbil ko beneen fenêtre ne ko gis nga safara bële ak la ca nekk ci ay mbugalu ko danger soo jaaruloon fi yàlla jaar fee la yàlla prévoiroon pour nga war fa nekk loolu mu ñuy jàngal man mi wax ak yéen ak yéen ñu toog ci jàkka ji amul kenn ci jaami yàlla yi lu dul bi la yàlla indi ci kaw suuf utul na la ñaari wàccuwaay benn wàccuwaay ci àjjana su dee ne jaar nga fa ko neex benn wàccuwaay ci sawara bu dee jaaroo fa ko neex amul kenn ci ñun lu dul am na loolu lii moo tax ba mbokk jullit rasul sallallahu alayhi wa sallam heure bu ñu masaan suul ab néew daaw fa nekk naan jàngal leen ko ñeen fukki lixlaas ak benn juróom-ñaari ina anzalna ila axiri daf naan istaghfiru li axikum wasalu lahu tasdiq fa innahu al ana yusal ñaan leen yàlla jéggal seen mbokk bi ñaan yàlla dëgëral ko ndax léegi ñu commencé ko laaj su ko defee la gën la ñuy ñaanal ab néew allahuma axfir lahu warhamhu allahuma sabbithu ay yàlla yàlla na nga ko jéggal yàlla na nga ko yërëm ay yàlla yàlla na nga ko saxal ñaan gi bu ko yàlla nangoo mucc na ci mbugalum bàmmeel ajjana mooy la nga xam ne mooy mooy la koy xaar mbokk lii kon dañuy gis ne ku nekk ci ñun war a bàyyi xel laaj boppam waa man lan mooy tax may dem bàmmeel yàlla di mu mbugal mbokk loolee xamal ne bokk na la ca borom xam-xam yi di tënk mooy lépp loo xamee ne nii yàlla da ko wax ci téeréem bi muy jur mbugalam di jur meram loolee bu la ko yàlla jéggalul xamal ne mi ngi lay xaar ci mbugalum bàmmeel bokk na ci loolee lépp loo xam ne ay jëw la ay rëmbaaj diggante nit ñi bokk na ci loolee sàggani julli na doon ca laab ga ngay laab ci douche ba la wala taxawaay ba nga koy taxawee ca waxtu wala wala toroxlu ga nga cee toroxlu yii yépp lu ci manqué mën na laa jural la nga xam ne mooy bëggalum bàmmeel al yor alal ca alal joojee doo ci xool aqu yàlla rawatina zakat mën na laa jural bëggalu bàmmeel mbokk lii di njaaloo lii di sàcc lii di naan sangara lii lépp mbokk mën na laa jural bëggalu bàmmeel la ca nekk ci lekk riba ak lépp loo xam ne nii dafa nekk ci ay bidaa yoo xam ne yaa ngi koy jaamoo yàlla ci yàlla joxewu ca benn lay lii lépp mbokk dalay jural mbugalu bàmmeel looloo tax da ngay gis ko mel ne Ibnul Qayyim day wax ne soo seetloo li sunna wax ci day jur mbugalu bàmmeel da ngay fekk li ëpp ci doomu aadama yi mandarga yi mbugalu bàmmeel mi ngi nekk ci ci ñoom loolu moo taxit ba la nga xam ne moo ciy muccale mooy fexeel ba lépp loo xam ne jàpp nga ne day jur mbëggalum bàmmeel nga fexe moytu ko waaye it góorgóorlu ci lépp loo xam ne ak jaamu yàlla la sax ci sa kéemtalal kattan jaamu yàlla yi mooy alamalu saalih amul kenn koo xam ne nii yaa ngi gëm yàlla di jëf lu baax lu dul suñu borom nee na danaa ko dundal dund gu tey man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun su dee bokkaale wu ak yàlla dara sax nga ci jëf yu baax góor nga wala jigéen danaa la dundal dund gu tey loolu ci àdduna la ci barzaq la yowmal qiyaama fay la la nga xam ne moo gën a màgg ci ay fay loolee mbokk ñu góorgóorlu tey jii ana ñaata la ñu àndaloon ci ñoo xam ne ñun ñoo leen mag foofu ñii suñuy doom ñii suñuy rakk waxumaa nag ña ñi mag waaye ana ñaata ñoo xam ne yow yaa leen mag fuuf tey jii yiitu nañ la ci biir bàmmeel wallahi amul lenn lu leen gënaloon lu dul taxawaat ci kaw suuf mën a wax laa ilaha illallah taxawaat mën a wax subhanallah walhamdulillah taxawaat mën a def benn jëf bu baax amul moo leen gënaloon ñu xëy am àdduna ak li ci biiram loolu it kon yow it góorgóorlul léegi nga dem fekk leen loo mën ci lu baax mbokk nga def ko balaa ngay daje ak la nga xam ne mooy say boroom mooy sa boroom waaye it di sax ca lañu yeneen bi alei salatu wasalaam jàngaloon mooy bari lool di ñaan yàlla musul ñi ci mbugalum bàmmeel daanuñu jàngal kenn ci yéen bu taayaa ba pare na ñaan ay soxlaam waaye li muy jëkk a ñaan mooy allahuma inni auzu bika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnati almahya walmamat wa min charri fitnati masihi dajjal la ngay jëkk a ñaan na nekk yàlla lay musal la ci jahannam musal la ci mbugalum xabru musal la ci fitna yi am ci dund ak dee ak fitna yi masihi dajjal lii mbokk da ngay gis ne tegtalu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñi ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla na yàlla dëppale ñu ak ngëm gu sell dëppale ñu ak jëf bu baax buy tax ñu texe àdduna tax ñu texe àllaaxira buy tax ñu mucc ci mbugalu àdduna ak mbugalu bàmmeel ak mbugalu àllaaxira yàlla na yàlla soppaloo ngëm yàlla ci suñu biir xol yàlla na yàlla taaral ko suñu xol yàlla na yàlla bañ ñooñu lépp luy jur meram lépp loo xam ne da koo sip yàlla na yàlla boole ñu min arrachidin allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar allahuma rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين